alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu euh, euh, ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah janoo euh, ki nga xamante ne nii suñ baay suñ kilifa suñ xarit suñ maam Cheikh Mouhamad Bachir xalifa Cheikh Mouhamad bu Niass tey nag ñu fekk la fii tey si sa kër ni ñu la daan fekkee waaye tey nag fekkin bi ñu ngi ñaan yàlla na fi gëj lool yàlla may la fan bu gudd bu ànd ak wér ni ma koy ñaanee yàgg fii moom mooy suñ njiglaay moom mooy suñ euh, mbégte ak kontante ndaxte waxtu wu dikkee rek bu ñu fëggee bunt li ñu fi ut si mooy xam-xam am nañu yaakaar bu baax ne waxtu wu ñu dikkee fekk ko fi tey nag euh, banqaas bu rëy wàccati si umma islamique waaye rawatina fii si hadara bi di suñu yaay suñu maam Faatimata Zahra ban te témoignage moom nga am pour xamale ko jaami yàlla yi. Euh, maa ngi nuyu mbooleem alamul islaam yi di wax li nga xam ne moom la yàlla diggal moom la ñu yàlla diggal ci bis lu mel nii su wàccee ci suñ kaw yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ne ko wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بين يسنى إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي arab sax lebon bu yag ne man lam yamut bi sayfi mat bi ghayrihi taaddadat al asbab wal mawtu wahid yàlla tëjalee ñu ko sax kullu nafsin zaiqatul mawt ñak nañ wéttal ñak nañ mbokk mu bax mu lewet mu tabe mu yaru mu taalibee mu bëgg baayam do taalibeem ñàkk nañ mbokk mu baax ci kër gam nekkoon di fa jaamu yàlla baayam dugal ko fa ngir mu liggéey fa liggéeyal fa yàlla ci ron borom këram ñàkk nañ mag ju baax mag joo xam ne mësta xam lu dara lu mës a xew ci njaboot gi fu mën a xewee rek dana ñëw fekkee ko dana ñëw jiite ko man maa ngi wax di wax loo xam ne bu nit ñi foog ne xew-xew bi li muy màgg màgg màgg ci suñ xol yi xew-xew bi ma yóbbu xew-xew bi yóbbuwut ma waxuma it waxi ku toog ci kanam caméra di leb lebor maa ngi wax di wax lu ma xam Fatimatu Zahra mi ñu ñàkk ñun ay doomi nijaayam lañ yàllaa ko defal loolu baayam nijaayam la cheikh alxaaji Mouhamed Zeynab radiallahu anhu moo ko yaayam suñ bajjan Aïchatu ñes mu gën siiwee woon ci bajjan Asta Daawut ñoom ñaar seen ñaari ndey ñoo bokk ndey ak baay ñun biñ ñëwee fii ci Medina benn jigéen lañ fi amoon muy soxna soosu muy bàjjan asta mu taxaw suñ taxawaayu baay baay ëmb ñëpp moom miiru ñëpp moo iir ñëpp waaye moom moo taxawoon suñ taxawaayu baay boobu suñ baay di génnaat na ñu xamuñ xamewuñ dee ak ngénte man ak li ma faree suuf Fatimatu Zahra mii moo doon suñ jigéen man ci sama bopp rek taxaw na ci man taxawaay yoo xam ne wax dëgg yàlla su taxutoon ak dëj la mën naa koo nettali waaye jaru ko ndax lim taxaw ci man óor na ma ne ma taxaw na ko ci ñeneen ñoo xam ne ñu dut man la waaye man ba koy taxaw ci man dafa ko doon taxaw ci man puisque mbokkam laa ci ñaari wel la sama doomi nijaay la suma doomi bàjjan la suma mag la nit ku yiwe nit ku suufeel boppam mboolem liggéey bu taalibe bi di taalibe di jaar rek ngir am lu baax ñun doon nañ gone gis Fatimatu Zahra di ko def doxee fii ci Medina bàyyi te booba Medina bàyyi mooy dëkk bi nga xam ne niñ def corona bi ni la ko waa Kawlax def quarantiné ko ñu bëri boo ne Medina Baye laa dëkk sax ñu neen dóoral mu dee ngay doxee fii yow ci jamono booba nga xam booba Sénégal Sénégal la taw a ngi bari waruwaay amut benn jumtukaay amut nga dëkk ci kër goo xam ne kër ak daara la borom kër gi sëriñ daara la. dafa ne li fay eewoo ci taaliba kenn xamut ni ñu am lépp loxo lañ koy liggéeyee machine amut. nga nan doxé fi ba marché Kaolack duggi marché Medina bobu amagut pàkk bang fi waye marché taxawut fi doxé fi ba marché Kaolack duggi yenu leket go xamné ne ko bëggoon a sa doom mu ne la ma bañ wala nak ma bañ waaw ci jamono buy taw buy ngelaw bu tangak bu pendek ak lépp loolu ñun fi lañu fekk mu def ngir gërëm lo yalla mi ko bind ngir jox sagal baayam mi ko ci dugal wan ko ne ko danaa liggéey ba am ndam ut ngërëmal yàlla ci ron borom këram yooyu la boole woon maa ngi fàttaliku Baye mos na fee am benn bëkk nekk di ko alxaaj Jibril Sàmb boobu ñu ne xale lañ dama toog ci rek mu romb ma ci mbaar mi mu ngi muuroo kaalaam ma ne ah, xaaral ma ñëw ànd ak Zahra ndax ma mën a g nuyuwaat baay nuyu bàyyi mu dugg gannaaw tàkkusaan dugg nuyoo bàyyi bàyyi bàyyi fay ko radiallahu ko zaara lan la mu ne ko damaa ñëw ndokkeel si la mu ne ko ah lu xew mu ne ko damaa dégg ne da am bëkk néeg bu tudd Jibril bàyyi musuma sikk ci ne xalifa yonantu bi nga gën naa leer nag tey gën naa dëgër ci man bi nga amee bëkk nekk bu tudd Jibril bàyyi jóg toog maa ngi koy fàttaliku bu baax li may wax nii bàyyi jóg toog jël ngay naay nii teg ko ci kaw tànkam yu tedd yi radiyallahu anhu dal na ko alhamdulilahi rabbil alamin rek mu génn dem mu tàllal loxo mu ñaanal ko mu génn ñibbi soxna soosu lañ ñàkk tey soxna soo xam ne war naa doon exemple ci jëpp jigéen ku sant ñas ak ku santut ñas sant yi war naa bañ a do suñuy kiiraay ku nekk rek xoolal ci Fatimatu Zahra mi sant dootu do sa kiiraay juddu dootu doon sa kiiraay da xam ne liggéeyal yàlla rek moo am njëriñ liggéeyal na yàlla eh ñu ngi ñaan yàlla dal na ko yàlla wanaleeg baayam radiyallahu anhu yal na ko yàlla wanaleeg maamam alxaaji Abdullahi Ñas radiyallahu anhu ñoom ñaar ñooñu ñu nga dëkk ak Cheikhu Tidiane dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla yéegee ci sette si kaw sax yàlla ko yàlla may rammum yonent bi ca boole ko ci way ram muy ëllëg lim fi bàyyi gannaaw muy njaboot yàlla na ci teg loxo yàlla leen yàlla musal yàlla leen yàlla jàmmal yàlla na leen yàlla suturaal yàlla na yàlla dimbale leen yaa rabbi yàlla risaala bi leen seen bàyyi bàyyee seen seen yaay bàyyee leen ko seen maam bàyyee leen ko du mbiram par parloo istiqaax istixqaaq la ak jadaara yàlla leen ci yàlla dimbale adduna bi xat na li muy xat xat xat xat xat imam Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi ñëw ci jumaa ji di julli dëkk yu booleek di sant nit ñi ne leen nañ muraaxaat ak li nga xam ne moom la docteur yi wax nañ xaw a soriante nañuy dëpp suñuy nañuy nañuy dëpp suñuy gémmiñ ak suñuy bakkan bu fi Imam Muhammad Mouhamed Cissé nekku fi Cheikh Mahe ngi fi yalla yalla di sen dimbal yalla na yalla wattu ya rabbi yàlla ya yal yalla yàlla wattu ñu goor ñi yalla yalla wattu jigen ñi ma ngi len di jall waye man ma ngi jall suma bop tedd bi limi yag yag yag musuma ko gis ludut suma ko ziaré jaan dana yëkkatiku te dana ree dana waxtaan dana ma maa ngi am doom joo xam ne sama bàyyi laa ko tuddee xaaj Mouhamed Zeynab su koy tudd sax du ko sàllalu dafa naan ma ana sama nijaay gëj nga koo dégg maa ngi am doom bu ñuy wax Nafisatu xaw na koo jege tuuti ci ay at bu demee ziyaara ji ko rek dafa bu ñëwee ne ma yaa faatee ngi lay nuyu tey day ah, papa ba ma fa demee dafa mel ni dafa wér dégg nga dafa may téye ci loxo rek ne du ma bàyyi ma ko ki ma la tuddee tax xaritam la woon mbokkam la woon nit ku baax nit ku lewet nit ku am jàmm nit ku am jàmm bi maanal kalima laa wax de lii ñuy wax nii ci moom nii tey xëy na nit ñu bëri buñ génnee àddina dañ leen ko waxal waaye du doo dëgg ci ñoom ci liñ koy waxal yépp dëgg ci moom ku ne ci ñun ñii dund nga ko man fan yoyu dunduna ko ci Medina man ci jilu ñaarel bi laa bokk waxuma ci jil bi sañ ci Medina la bok de way ci jilu ñaarel ba laa te bo ba legi dewuma fenn te ñaanuma yalla dem fenn sax fi rek la bëgg waaw fi rek la bëgg fi rek la xam li fi nek rek la bëgg borom dekk bi rek la bëgg itam kon xamna fatmatu Fatimatu Zahra mi yàlla yalla yàlla xarfe aljanna yàlla yalla aljanna yàlla na ko yàlla xar fi aljanna yaa rabbi yàlla eh, eh, bàyyi nag nee na mixanun fii tayyiha minaxun eh, ku ñàkk ku mel nii santal yàlla gannaaw ñàkk mënta ñàkk du jaas mukk moom alors fokk ngay ñàkk ku taq ci yow ku la jege waaye ku ñàkk koo xam ne àddina yëpp xam nañ ne ku baax dem na booba nga sant yàlla mënoon na ñëw ñàkk koo xam ne kenn du ko yëg duñ bëgg kenn yëg ko waaye kii àddina yëpp yëg na Europe dañoo fajaru di ma téléphoné am na ñoo xam ne ci taalibe yi bi ñu ma téléphoné mënuñoo wax sax waaw ndax jooy yu métti waaw man maa mujj di leen defal eh, mu ngoog maa ngi jël sama njaal di ko teg ci loxo Seydil Imaam Cheikh Ahmad Tidiane Seydi Ali di ko toog ci loxo jigéenam

yaay ma ko ko wax seen yaay seen yaay seen yaay seen yaay ñun dencaluñu woon dara dara dara dara lañu ñu dencalu toon waaw dara lépp lu mës am ci lu baax rek éene nañu ko waaw eh, ñu ngi leen di jaale ñoom ñooñu di jaale Cheikh Mouhamadul Aqib olof ñoo wax ne xew-xew bu ne am na jàppal diw eh, magam la suñ xarit la suñ doomi baye la mom itam di suñ doomi bàjjen ñu koy jale ñu ngi wax ne yàlla ko yalla moy xolu muñ yaa rabbi wet nañ waye yalla wet liko yalla baye mu ne ku wet ku liko lu yalla bis dana ñew nga wet yalla yalla ñu yalla yalla na yalla di suñ wetal ya rabbi yalla yalla na yalla di suñ dimbal ci liñ bëgg ak ci liñ bañ waaw ya rabbi yalla yëngatu yeeg dal yépp yalla ngir yalla yaa rabbi yàlla alhamdulilahi maa ngi wax alhamdulilahi doomi lislaam ma ngi nii dem na di sëtu lislaam di sët sëtaatu lislaam di waliyu yàlla kii ci saalixaatu yi la bokk kii ci saalixaatu yi la bokk waaw loolu moom képp ku la ko weddil rek yow ci sa bopp yow mi wax yow la xeeb waaye xam na ne kii saalixaatu la ci saalixaatu yi la bokk wassalaamu aleykum wa rahmatullah macha allah xol fees na lool lool lool lool lool lool lool Cheikh Mouhamad Bachir ñu ngi lay doon wax di la ñaanal yàlla yal na yàlla nekk sa ndimbal yow it yàlla taxawu la suñ maam ju baax duñ ko wax bàyyi ndax jur na lu ñu mën a jur moo tax maam lañ koy te suñ maam ju baax di xamante ne ku xam Medina ni mu koy waxee ne xaw ma fenn bëgguma fenn dew ma fenn te bëggumaa dem fenn dëgg-dëgg loolu la waajuram ba Cheikh Mouhamad bu nekkee woon ak Mawlana Cheikh Islam moom tamit bu nekkaatee ak njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim gi loolu dañ naan kon xàndoor bawut yoonam yal na yàlla yokk ndimbal ba andi bi yàlla yàggal ko bu baax a baax may la ay fan yi fan yi fan yi may la ay ati ati at dund téeméeri at door commencé dundu te ànd ak wér ak kàttan barke bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokku téléspectateurs yi waxoon nañ leen ko démb sa annonce u imaamul akbar bi na ne incha allahu rabbi dinañ jaay suñ nelaw yi jaay suñ lépp ngir borom bés bi ngir tolluwaay bés bi ngir tolluwaayu xadara bi ngir yéen ñi nga xamante ne nii xew-xew yu mel nii waxtu wu ne seen xol ak seen xalaat yëpp mu ngi Medina Baye dégg nga kilifa gi ni mu ko waxee sànq ñi koy oo téléphone ñëpp ñu ngi ko ayee bitim réew waaye moo ëlbati ko waat di leen defal waaye na kilifa ni lay toogee waxtu wu ne fu taalibe yi jaaxle mu defal leen andil leen li nga xamante ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim digle kon dañuy daal di emendi ak yéen fii jéem a ànd ak yéen si yeneen kilifa gannaaw bu ñu jógee ko si kilifa yu baax yi kilifa yu màgg yi dikkaat si kilifa gu mag gi kilifa gu baax gi waxtu wu waxee rek xool yëpp eggaat si pays Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamad Bachir yàlla na la ko soo fan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf macha